tey bi ma xëyee yow gis réseaux sociaux yi ñu envier ko di saaga rek voilà di wax dëgg yàlla di di wax rek voilà Ablaye Wade lii Ablaye Wade laa Khalifa Sall lii Khalifa Sall laa Idriss Seck lii Idriss Seck laa voilà di aussi gis euh, euh, seen chef ñoom gis ko mu dem Casamance naa ci ay mbokkam am na sax ñu ma dégg ñu koy tooñ naan ko ñu ñu koy tooñ naan ko da ngaa dem Casamance pour uti sëriñ Babacar Seck maa ngi lay ziare ñu ko da ngaa dem Casamance pour uti eh, da ngay bañ eh, da bañ waa ji dugal la ndungu si moo tax nga daw Casamance uti sëriñ leen déedéet dawul de dafa dem seeti ay mbokkam nag wax dëgg yàlla eh, Sonko Casamance day dem seeti ay mbokkam en tout cas temps yi moom mi ngi def politique moom mi ngi def politique bu baax a baax a baax parce que mi ngi def ay stratégie yoo xamante ni nii loolu moom politique la moom voilà loolu yëpp communication la te vraiment euh, dañ ko koy nangul nag ndax euh, léegi moom mu ngi daal la système parce que système bi mooy politicien yi te comme moom mu ngi politique rek euh, na na na kii xëy na nag dafa ñëw indi beneen façon politique looloo tax muy muy doxalee noonu voilà sama gars yi maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen ñaanal dimanche jàmm di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ni fan yi coowar quatorze quatre-vingt-quatorze milliards yi nekk Sénégal vraiment euh, sonal nañu ko euh, sonal nañu ci wax dëgg yàlla ñu gis euh, assemblée nationale di ci wax ñu gis Ousmane Sonko di ci wax ñu gis ñi ànd ak Mamour Diallo ñu ànd ak Ousmane Sonko kenn ku nekk di défendre sa position télé yi di def ay plateau rajo yi di ci wax di ci débat loolu yëpp ñu koy gis en tout comme ni ñu ko waxee woon ni ñu ko yàgg di waxee euh, nañu nañu ko leeral euh, pour Sénégal avancé nekk ci leneen wax dëgg yàlla parce que euh, depuis élection yi jàllee ba léegi vraiment ñu ngi tànkal ci ay quatre-vingt-quatorze milliards kaka kii kaka kaa yaa def yaa defoo yaa tuumaal tuumaaluma am naa preuve a ma preuve parce que dëgg-dëgg nag quatre-vingt-quatorze milliards ci réew mu mel ni Sénégal neexul ba neexul mais amul. benn tur boo xam war na fa am quatre-vingt-quatorze milliards fu mu génn rek nit ñi mën nañ koo xam ah muy il y a que deux partis politiques au Sénégal ah, dofu kër gi tey suba de damaa gis ngeen xëy di saaga Khalifa Sall ba mu tooy ak Karim Wade ak Macky ah, Ablaye Wade maa ngi gis ngeen naan système baa ngi complot mais sonk rek moo def ak peuple bi loolu de mu wax dëgg yàlla waru warul nekk seen wax nag wax dëgg yàlla parce que yéen fan yële paase gis naa gars yi nekk ci biir système bi di leen jàppale fan yi nag gis naa ay malal taala gars yëpp di leen commencé daw dafa kër gi mais nag mais nag noonu la politique la voilà boobu ba léegi ñu ngi gis gars yi nekk ci di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax il est temps nag mu leer comme commission d'enquête bi jeex na est tamit doo dem liggéey un que tam doo dem liggéey Ibou Mbow aujourd'hui c'est le dimanche nag wax dëgg yàlla dimanche moom xanaa képp kuy liggéey di nga noppalu ah Ibou Ibou je te pose cette ñu liggéeyee lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi xanaa dimanche nag dinañ toog ci kër gi noppalu nag tuuti hmm? loolu moom solo Ibou euh, xam nga Ibou Sénégal lan moo ko yàq soo waxul nit lu ko intéressé rek mu xarab la te boo bu la neexee nga jóg wax ci ku la neex kenn ku nekk sa point de vue mais dama seetlu ni Sénégal da ngay joxe sa point de vue mais doo nangu ku joxe point de vue yoon surtout nag yéen waa Pastef yéen vous croyez que Euh, seen waa kese mooy sénégalais seen waa ji kese mooy patriote parce que xamu leen luy patriote yéen slogan ngeen ko def patriote patriotisme yéen slogan ngeen ko def xam nga ku la fekk fii nga naan ma est-ce que doo dem liggéey yi mel ne ku ma xam xam nga ni waxoo waxee woo benn argument waxee woo benn xam-xam man maa ngi ci dimanche damay noppalu toog sama kër vraiment du euh, du du yow yaay ñëw fi ñu ma doo liggéey wala yooyu voilà excès gu ma ci loolu voilà may wax ni quatre-vingt-quatorze milliards yi vraiment ibu eh, Ibou comment tu vas Ibou Ibou arc-en-ciel comment tu vas bon euh, Ibou Ibou Ibou wax nga lay ziare bon dimanche Ibou Ibou Mbaw waaye bien sûr waaye Babacar xamal ko loolu ni ko bon dimanche Ibou Mbaw bon dimanche ñun dañuy noppalu maa di njaay borom poste bu neex li jaar naa la démb gars yi commenté nañ sa post bi de mais li nga wax nag dafa am solo ah, xam nga fi mu toll nii dafa am ñoo xamante ni nii euh, depuis nga nga posté sa photo boobu rek ci Facebook bi ba léegi dañoo tëj seen Facebook nangootuñ ko ubbi parce que gis Khalifa Sall ak Idriss Seck ñu taxaw rek non saa waay loolu beneen affaire la ah ma njaay ma njaay maan njaay njaay sa photo boobu tax na gaa yi bëri génn Facebook bi <laughs> voilà li wax ni quatre-vingt-quatorze milliards yi il temps nag ñu leeral ko comme que commission d'enquête bi pare na ba joxe ay recommandations euh, dégg naa ñu naan euh, monsieur Mamour la demain dina def pelent wala yooyu loolu yëpp ñun intéressé wul ñun li ñu intéressé mooy euh, coowal 94 milliards yi dafa doy dañu tànqal quoi tànqal nañ ñu am naa preuve aw ma preuve ki na génnee preuve ki du génnee preuve avocat fii avocat fa lu nañu wax ko loolu dafa doy honnête quoi ñun ñun sonn nañ ci ci yooyu nga xamante ne nii mooy loolu Mansour saw yow moom sama xarit nga bis bu yàlla sàkk ma gis ma gis ma gis sa commentaire maa ngi maa ngi maa ngi yóbbante sama ibu nuyoo sama sama nuyoo ibu bis bu yàlla sàkk ma gis sa commentaire Mansour man Sonko wax dëgg yàlla intéressé wu ma xam nga lan moom lan lan moo ma lan moo ma intéressé souvent du ma wax ak Sonko yow Mansour xam nga moom baax xam nga man ban genre nit la mais xam nga lan moo ma lan moo ma neexul waa kër Ousmane Sonko lan moo tax bu ñu toogee xëy suba ba ngoon te bind ñu ci Idrissa Seck duñu am leen nga gis nga Mansour saa yoo gisee ma def poste wala ma riposte xamal ne damaa gis lu ma neexul lu ñu wax ci Idriss Seck ma fay loolu kese la mais wallaahi lazim Ousmane Sonko amul moo ko benn am am ak moom benn xaar ma yàlla opposition la nekk ma nekk opposition mais moom na na opposé man ma opposé ñoom tamit militant Ousmane Sonko yi ak militant yeneen parti yi nañu respecté quoi kenn ku nekk respecté sa moroom mais tey da ngay xool. waa kër Ousmane Sonko déjà rek déjà rek ñoom dañ ñoo qualifié ñun politiciens yëpp ni ñun ñooy système bi loolu amul benn politicien bu ko mën a gérer du PDS du xalifiste amul benn parti politique bu mën a gérer wax jooju Ousmane Sonko di leen wax ba pare ñu continuer di ko bind chaque jour son ko gënu fi ndeyu kenn gënu fi baayu kenn parti euh, waa patriote yi gëmuñu fi kenn nekkewuñu Sénégal lu dul saaga kilifa diine yi ak saaga nit ñi loolu moo war a loolu moo war a jeex yow man suuf dama lay wax xam nga ko ñun nag du ñu ay nafeq du ñu ay nafeq quoi affaire opportuniste yi ngeen di def affaire égoïsme yi euh, ku jóg ngeen saaga ku jóg ngeen wax ko lu nekk da ngeen na ko dàq nit ñi seen politique yëpp ay manipulation la sénégalais yi dem nañ ba comprendre ni da ngeen di manipuler nit ñi bu ngeen toogee di jaxase xelu nit ñi loolu loolu da koy def ñi ngeen ko mun def mais un politicien comme moi Ousmane Sonko mënuma manipuler Ousmane Sonko mënul manipuler sénégalais intellectuels yi nga xamante ni tey ñoom ñooy woote affaire de anti système parce que xam nañ gaayam yi lu ñuy wax man waxuma ko moom peut-être moom pay mi ngi wax lu mu gëm mais ñi mu àndal li ñuy wax waxu naxasa xandang la gëmuñu tous dañu fi nekk di jéem a manipuler sénégalais yi di naan voilà anti système anti système c'est un slogan gëmuñu ko du lu ñu gëm système bi ñuy wax c'est un slogan du lu ñu gëm gëmuñu ko Ousmane Sonko il veut seulement être président de la République basta loolu kese la du leneen gëmul lu muy wax dafa gëm ay anti système lan moo tax tey mu taxaw fële di saaga Ablaye Wade te bërki dem mu ngi demoon ci Ablaye Wade lan moo tax muy maa ngi gis ni tamit démb Khalifa Sall dem seen Idrissa Seck ñoom ñëpp ñu commencé di naan Ablaye Wade mu ngi pale Khalifa Sall dem na kër Idrissa Seck Sonko avec le peuple par maanaam ñun gëmuñu ku dul Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko moo fi nekk di mbépp mbébi di wax lu nekk ci sénégalais yi te lu muy wax amu ci benn firnde Ousmane Sonko ba mu dalee wax ba léegi lan la fi def lan la fi def démb maa ngi gis ngeen commencé wax naan voilà Ablaye Wade euh, day dil pétrole day def lii day def laa léegi ana aar lu ñu bokk Ablaye Wade il a dit clairement Macky Sall que pétrole bi ni ñu koy gérer baax na léegi ana aar lu ñu bokk ana aar lu ñu bokk parce que affaire caaxaan la woon affaire affaire politique la ma ni Sénégal bu ñu ko bëggee dañuy ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy jóg xeex benn mbir xeex ko ci fulla ak fayda mais bëgg a xeex benn mbir jàpp ni voilà kii nii moo nekk l'homme boo xamante ne nii mais Ousmane Sonko ban xam la am. man xam-xam la am Mansour parce que bugguma ci woon wax ko mais danga nga may merloo souvent ban xam-xam la am ban xam-xam la am yow léegi yow di yow yow léegi bu ñu la tegalee ñaari nit majeur ak maturité ak maturité lan ngay jël Ousmane Sonko mënul jiite Sénégal loolu dama leen koy wax ngeen dégg ko amul xam-xamam amul charisme bu amul maturité bi quand même ay doomu Sénégal nekk fi gën koo dàq jàng fopp gën koo xam lan mooy liggéey ngeen nekk fi mu indi leen ay slogan anti système ay slogan dénonciation ngeen topp ci am di daw yaakaar ne moo fi gën nit ñi arrête quoi wala ngeen génn sama live bu nekkee damay ñëw di wax sama wax ngeen ñëw bugguma dugal affaire Ousmane Sonko et puis da ngeen may tooñ quoi da may tooñ da ngeen may tooñ quoi sénégalais yi duñ ay dof sénégalais yi dépassé nañu ay waxu Ousmane Sonko yi muy wax su ngeen bañee ma tudd Ousmane Sonko bu leen fi ñëw di ko tudd sama live tey bëggoon naa live ba live bi jeex du ma ko tudd Ousmane Sonko dafa mën a jiite Sénégal dafa am xam-xam bu mu jiite Sénégal xanaa Sénégal dañoo dof bay jël nit koo xamante ne amul benn maturité ñu koy jox suñu réew bëgguma woon egg foofu mbaa du yéen affaire faveur faveur bi affaire phénomène bi moo tax ngeen yaakaar ne Ousmane Sonko moo fi nekk Ousmane ko sénégalais yi gëmuñu ko la preuve en est na dem Casamance dem ci marché yi dem ci jumaa yi pour am mbooloo drainé wul benn mbooloo loolu il faut ngeen xam ko bu leen ñu sonal nekkatuñ nekkatuñ ci temps politique ngeen nekk ci dëkk bi di mbeb bi li ngeen fi doon def lépp tey fu mu juddu anam aar li ñu bokk bu ngeen fi doon mbébbe bi anam ñu bu ngeen fi doon bi yéen ñi fi nekkoon yépp yow Mansour saw ak ñeneen ak ñeneen fi ngeen nekkoon ni Idriss Seck dafa nekk di deal ak Macky Sall pour chef de l'opposition chef de l'opposition noonu naa waxuñu ko démb ci biir palais ana moo doon deal Idriss Seck a encore raison avec tout le monde loolu leen xam Idriss Seck yow Mansour yow tu connais Idrissa Seck parce que ancien réewmiste nga ana dil bi ngeen doon wax ci chef de l'opposition alors tey kàccu leen tey kàccu leen fii ngeen nekk yéen ñëpp Idrissa Seck mu ngi dil mu ngi dil mu ngi dil mu ngi dil mu ngi dil ana dil bi ana dil bi ngeen doon wax ana dil bi ngeen doon wax kan moo osé ci yéen bind ma message léegi ni ma Idrissa day dil Moussa Bane maa ngi lay nuyu di la ziar Jalima Kouyaté maa ngi lay dund di la ziar ana dil bi ngeen doon wa kan moo osé ci yéen bind ma message ni Idriss Seck mu ngi dil na am ku osé léegi bind ma message mi ngi dem mi ngi dil mi ngi wax ak ana kuy dil arrête Idriss Seck nekkul ci ñëfu ñàkk fayda yi ngeen nekk yéen Idriss Seck nekkul ci yëfu ñàkk fayda yi ngeen nekk mbépp mbépp mbépp guddeeg bëccëg respecté wu leen sénégalais yi mais Idriss Seck dafa respecté Sénégalais yi du fi nekk di leen tànqal ak wax ju bëri te wax joo xamante ni du mujj fenn ana lu ngeen doon mbel mbel yëpp fan la mujj tey fan la mujj alors dañu war a respecté réew mi respecté Sénégal jéem a xalaat ay xalaat yoo xamante ni nii mooy jëmale Sénégal kanam génn ngeen wax fi leen wax ngeen fi lépp Ousmane Sonko wax na fi lépp te lépp lu mu wax wax la ca des barki dem fii ngeen taxaw ngeen di jalagoo leen ak Macky waxtaanu leen ak Macky Sall Ousmane Sonko il a avoué mu ni mi ngi dialogué mu ngi ci dialogue politique bi parce que moom falu moo ko intéressé dialogue national bu ñu ko waxee mu ni moom nekkul ci dialogue national te dialogue national commencé gul mais maa ngi dialogue politique parce que il respecte pas le sénégalais parce que sénégalais yi mooy national politique mooy politicien yi alors moom il est un politicien nan ngeen mën a déggee waxam boobu noonu nan ngay mën a déggee waxam boobu noonu dialogue ma dialogue national mais maa ngi dialogue politique alors faalewul sénégalais yi politique lay def pour falu Ousmane sonk moo ko wax yéen fii ngeen taxaw rajo kankan ngeen tëgg fu nekk ajuma sow bokkul parti Pastef te moo représenté Ousmane Sonko si dialogue bi ngeen taxaw ni Ousmane Sonko nekkul si dialogue politique bi seen manipulation yooyu ngeen def sénégalais yi bugguñu ko ku bëgg a jiiteem réew doo commencé di kàcc pour jiite am réew ngeen fi doon wax Ousmane Sonko nekkul ci dialogue nekkul ci dialogue nekkul ci dialogue mu taxaw ni leen maa ngi ci dialogue politique bi démb bu bërki démb ñu gis ki ko représenté dialogue politique bi mu toog euh, Walf Fadjri TV di ko défendre ngeen yaakaar ni yéen yéen a mag sénégalais yi da ngeen a bëgg a ñëw manipuler sénégalais yi da ngeen a bëgg a ñëw dox ci maayanu sénégalais yi wax naan leen anti système anti système anti système da gëmu leen ci tous anti système slogan la patriotisme slogan la gëmoo leen lan mu xamul lan mooy patriotisme patriotisme du wax rek mooy patriote da ngeen a xam lan mooy patriote dialogue politique dialogue politique Ousmane Sonko da ngeen waxoon nekku ci ñu ñëw ñu ni leen Ousmane Sonko mu ngi ci dialogue bi ngeen ni du dëgg nekku ci Ousmane Sonko dialoguewul ñun leen ñu gën di leen photo àjjuma sow ni leen mu ngi nii ngeen ni nekkatul ci parti bi loolu ngeen wax yéen ñëpp loolu ngeen wax Mansour Mansour sama xaritoog yow ko yàlla moo ko def man ak yow mu wees nañ ay xarit ay doomu ndey lañ mais nag il faut ñu ñu waxtaan man xam naa la bu baax xam nga ma bu baax am na loo xamante ni jarul ñu koy wax ancien Idrissa nga da ngaa transhumé dem si taliban yi loolu la mais dama lay nangul sa position boobu noonu mais bu leen fi nekk di terroriser doomu aadama yi wala ngeen di terroriser sénégalais yi wala ngeen nekk fii lu ne ngeen bëgg ko wax ci nit ñi euh, yaakaar ni Ousmane Sonko kese moo baax loolu du dëgg du yoon Ousmane Sonko bu dee xeexal Sénégal dañuy d'accord mu xeexal Sénégal xeexal am parti politique am pour laaj baatu askan bi ñun ànduñu ci Ousmane Sonko kenn di ko faagaagal ci wàllu politique duñ ci man du ma ci masa d'accord du ma masa d'accord ci Ousmane Sonko ñu koy yàqal dara ci wàllu politique du ma ci masa ànd du ma masa d'accord ci Ousmane Sonko ñu koy dugal ci kaso ci lu dul yoon duma ma ci masa ànd parce que man patriote la du ma toog ñuy néewal doole ab patriote ñu bëggee néewal Ousmane Sonko damay jóg xeexal ko comme ni ma ko yàgg defee bi élection yi jàlle yéen ñépp gis ngeen ma may toog di défendre Ousmane Sonko su ngeen bëggee nag ma bañ a tudd Ousmane Sonko su ngeen dee tudd Idrissa Seck da ngeen di tudd Idrissa Seck ci lu baax comme lu may tuddal Ousmane Sonko wala ngeen bàyyi Idrissa Seck tout tranquille ma bàyyi Ousmane Sonko su tranquille point barre point barre yéen instant bi Idrissa Seck dem ci seeti xalifa Sall lan lan lan moo leen ci war a naqari yéen lan moo leen ci war a naqari ba ngeen toog di def seen post yu naafiq yu saytaane yooyu naan voilà Ablaye Wade au xalifa Khalifa Sall c'est Idi Sonko avec le peuple di gaaruwaale pour lan di def poste boobu je lui envoie un message ma ni ko euh, le jour qui vient Ousmane Sonko ak Khalifa Sall jàpp naa ne dinañ gisante na nga fexe ba poste bii nga def bu ko supprimer pour ñu wan ko waa Sénégal parce que loolu ngeen gëm vous êtes des manipulateurs loolu rek ngeen gëm gëmoo leen leneen xamoo leen leneen yéen ban politique see ngeen gis mu gàddu xeexu euh, euh, le maire Khalifa Sall ku dul Idriss rek amu fi amu fi Khalifa Sall génn am considération bu mel noonu ci rakkam sol dàllam dem kër rakkam seeti ko ngeen nekk ci naan waru ko seeti waru fa dem waru def li waru def la ma Idrissa Seck moom xanaa baaxul koo xamante ni nii tey dañ naan vingt cinq pour cent wu sénégalais yi moom lañu ñu àndal jox ko seen baat bu ma toogee nit bëgg a toog di ignorer Idrissa Seck ay journalistes ay les soi-disant patriotes les talibans les salafistes bëgg a nekk naan da ngeen di ignorer l'ignorable nit koo xam ni kenn mënu ko ignorer ça m'a fait mal au cœur loolu du ma ko nangul kenn respecter les Sénégalais respecter les patriotes bu nekkee ay patriotes ngeen je quand am nga sa droit wu dem seeti ku la neex Ablaye Wade dem na pare de la République man intéressé wu ma intéressé wu ma Ablaye Wade li mu waroon a defal Sénégal defal na ko Sénégal c'est du passé Ablaye Wade c'est du passé li mu waroon defal Sénégal defal na ko Sénégal Ablaye Wade il a quatre-vingt-dix ans ou plus su amee conseiller bu muy jox président Macky Sall xëy na peut-être c'est la c'est loo xamante ni luy jëriñ Sénégal la mais gisuma ci benn benn benn benn loo xamante ni mën na koo amal njariñ moom ci Ablaye Wade nii Macky ci wàllu politique sénégalais yi dépassé nañu yii doon am yii doon xew mais lu fi jar ngeen ni daggal Ablaye Wade di saaga Ablaye Wade di ko wax lu la neex ñun Ablaye Wade moo ñu njaboote njaboote président Idrissa Seck njaboote tous les libéraux yu nekk Sénégal Ablaye Wade dem jubóo ji ak Macky Sall xanaa ñun la waroon a metti Ablaye Wade lan moo gën a yell tey Ablaye Wade sol dàllam dem seen Idriss Seck Idriss seek nga xamante ni moo xeex ba indi Ablaye Wade ci pale bi lan moo tax ñun ñun loolu metti wuñu parce que ñun ay sénégalais lañ dañoo gëm sénégalais dañoo kenn ku nekk am nga droit def li la neex nga dem def ko Ablaye Wade am na droit dem palais seeti ci Macky Sall loolu ban ban ban lan la yàq lan la yàq ci ci ci lan la defar ci Sénégal lan la indi lu bees ci Sénégal ba ngeen nekk fii takk micro trottoir nekk ci dëkk bi di saaga Ablaye Wade di saaga ku leen neex naan voilà voilà voilà mi ngi nii di quand même essayons de respecter sénégalais yi d'abord te xam ni euh, ay slogan wala am nekk ci Facebook bi di monter ay nit di yàq ay deru nit di wax lu leen neex amul benn solo loolu du politique sénégalais yi du ñu leen fekk si loolu da ngeen ni gën a yàqal seen bopp man loolu laa gëm tra tra maa ngi lay ziare réew miste euh, defuñu poste ci Wade avec euh, Macky ça ça intéresse waaye loolu dafa ñu intéressé wul Ablaye Wade dem na pale dem na seeti Macky Sall loolu intéressé wuñu ñun liñ ci waroon a wax nañ ko ci Ablaye Wade juboo na ak Macky Sall ci Euh, am na ñoo xamante lan la ñuy wax juboo nañ bu yàgg ñun xooluñu loolu intéressé wuñu xam nga ñu intéressé sénégalais yi ñun sénégalais la ñuy waxal Idrissa Seck Ablaye Wade Macky Sall keneen ak loolu intéressé wu ko Idrissa Seck li mu leen wax dafa clair man xam nga lu ma gën a metti ci waa ci ci ci ñii nga xamante ne nii xamuñu tous il faut ngeen di déglu Idrissa Seck Idrissa Seck tey foo ngeen ni bu nekkoon di naan day dil ak Macky dina wax waxam jooju réy jooju mu wax te mosu leen wax lu dañ Idrissa Seck vous avez dit soxlawu ma benn nomination buy jóge ci décret sur ça waroon ngeen a xam ni nit kii nii du genre nit boo xamante ni dafa dugg ci ay dil ak affaire ñàkk fayda yooyu kan moo ñu wax ni Ousmane Sonko nekkul di dil parce que dafa dem seeti Ablaye Wade pourtant j'ai entendu des journalistes dire que euh, Ablaye Wade euh, allait au palais pour deux choses pour Idri euh, pour Karim Wade deux pour Ousmane Sonko lan la ko Ousmane Sonko yóbbante intéressé wuñu lan la Ousmane Sonko wax ab Ablaye Wade intéressé wuñu lu ñu mën a jàngat ci loolu mooy Ousmane Sonko il voulait téye Ablaye Wade mu tourner retourner dem dem rejoindre ko Ablaye Wade dem defi leneen loolu bu mu leen méttee loolu ngeen dem wax ko Ousmane Sonko mooy bu leen ko wax waa réew mi bu leen ko wax Idriss Seck lu ci yoonu Idriss Seck lu ci yoonu xalifa Sall man maa tey wax ni je rêve un jour Khalifa Idi sur la tête Sénégal parce que c'est deux patriotes loolu may rêvé sénégalais yépp moom la ñuy rêvé sénégalais yépp dañuy rêvé ëllëg yi si biir Khalifa Sall ak Idriss Seck yore commande réew mi te loolu la wax ci loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñuy dox bu leen naqaree nag saa ngeen xool neneen loo leen def j'appelle tous les khalifistes tous les khalifistes et des réewmistes de unir loo force mu leen koy wax waa kër Khalifa Sall bépp khalifiste Euh, bépp réew mi si nañu unir seen doole xam ni l'avenir du Sénégal mu ngi ci ñooñu sans en citer d'autres ku mel ne ay Malick Gakou ku mel ne euh, euh, ñu bëri ñi nga xamante ne tey ñu fi ñooñu ñoo yor avenir du Sénégal parce que nekku fi nekkuñu fi di mbii coo mbaaloo nekk di solo nit ñi ak wax ñu bëri ci Sénégal nekkuñu fi di dugg ak a génn yooyu ñooñu defuñu ko kon ñooñu ñooy avenir du Sénégal damay encore une fois wax samay kaddu maa ngi woo waa xalifiste yëpp ak waa réew miste yëpp comme ni ñu ko defee démb ñaar ñoon ñaari kilifa yooyu ni ñu ko defee nañu continuer noonu dajaloo booloo nekk benn ànd pour sauver danger bi nga xamante ni mooy ñëw ci Sénégal parce que danger bi di ñëw ci Sénégal fii lañ nekk di naan di ñu sonal euh, naan ay patriote patriote patriote patriote lii ak lii ak lii réew mi jàmm lañ fi bëgg réew mi mu développé lañ fi bëgg gis na ñaar nit ñoo xamante ne mën nañoo taxaw développé Sénégal muy Khalifa Sall Idriss Seck na Sénégal yëpp jóg takku taxaw ànd ak Idrissa Seck ànd ak Khalifa Sall ñu génne fi li fi nekk defar Sénégal loolu mooy dëgg Pape Cheikh si je te permets pas nga ñëw fi dugg fi di ma saaga li ma la wax looloo am Ousmane Sonko majeur na waaye amul maturité Sénégal soxlaagul Ousmane Sonko Sénégal soxlaagul Ousmane Sonko loolu mooy dëgg réalité Sénégal tolloo gu ñu ci Ousmane Sonko jeunes yi ngay wax ay vingt et ak affaire yooyu gëmuñu Ousmane Sonko mais parti boo dem am na ay jeunes. parti boo dem am na jeunesse li ngeen di wax amul du dëgg jeunes yi gëmuñu Ousmane Sonko parti boo dem am na jeunesse muy réew mi muy PDS muy APR muy euh, euh, grand parti parti boo dem dafa am jeunesse loolu bu mu tax ngeen ne jeunesse bi Ousmane Sonko la àndal ànduñoo Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñu ko wër ñëpp am nañ 40 ans dama xool Idrissa Seck ñu ànd ak moom dama xool ñu ànd ak Macky Sall wala ñu ànd ak keneen. teg ni Ousmane Sonko la seen i àndal àndu ñoo moom man mii di wax ak yéen da ngeen a xam ñaata at la am lan moo tax ànduma Ousmane Sonko keneen ak keneen keneen ak keneen man damaa gëmul ay di disant patriote man Sénégal laa gëm bul yàq suma live quoi Ousmane Sonko nekkul menu live bi menu live bi sa entre Idrissa ak Khalifa Sall bul yàq suma live quoi waxuma fi waxu Ousmane Sonko man je dis que tous les réumistes et khalifistes nañu dajaloo boole seen doole jële fi li fi nekk parce que mën nañ ko force politique bi ci Idrissa Seck Khalifa Sall la nekk kan moo ko mën a bañ kenn du ko bañ force politique u Sénégal actuellement réalité yu Sénégal actuellement entre Idrissa sekk ay Khalifa Sall Idrissa Seck il a vingt et vingt et pour cent ci élection yi passé Ousmane Sonko quinze pour cent à qui a pour avoir quinze pour cent ñun xam nañ ko yow sene si Ousmane Sonko boobu nga nekk fi di ma terroriser ba ci jeunesse xalifa xalifa si bi génn nga xam xalifa mii ngeen di saaga tey di ko xas di naan maa ngi dégg Ousmane Sonko di naan warut du ànd ci ay ay ay ay administré parce que dafa jàpp ne bu ñu administré xalifa xalifa jël li nga xamante ni moom jëloon na ko ci moom bàyyi leen seen yooyu neen ngeen def da ngeen di bàyyi seen yooyu ngeen di def opportuniste weesuwul xalifa Sall nekk ci kaso yéen ay militant mboteel leen ba ngeen am quinze pour cent tey mu génn kaso ngeen naan kenn waru ko setal loolu waroo leen koo wax fu ngeen ko teg te Khalifa sàll li mu li waa li ay ay jeunesse am participer ci élection Ousmane Sonko bu ñu ko jëlee Ousmane Sonko du dese cinq pour cent loolu mooy dëgg il faut ngeen arrêter seen caaxaan yi ngeen di def Khalifa Sall c'est un sénégalais Khalifa Sall dañ koo tooñ dugal ko kaso Khalifa Sall génn na dañuy ñaan yàlla ñu delloo ko ay droit am may woo encore une fois les khalifistes et les réwmistes nañu unir seen ay forces l'avenir du Sénégal c'est de Idrissa Seck et Khalifa Sall on le veuille ou non loolu moo am maturité mat nañu ko mën nañu ko ay homme d'état lañ bu leen fi jóg naan ay euh, euh, Ablaye Wade au palais Khalifa Sall c'est Idi Sonko avec le peuple mel ne Ablaye Wade peuple bi àndul moom Khalifa Sall Idrissa Seck peuple bi àndul ak ñoom mais da ngay ni li ngeen di wax tegu leen ko ci dëgg affaire u naafeq la da ngeen di arrêté loolu oui je laisse seen ignorance sont avec Ousmane parce que ñoom ñoo fi nekk di saaga sëriñ si di saaga kilifa diine yi di saaga euh, suñu suñu suñu suñu mag ñi nga xamante ne ñoo téye Sénégal boobu ba léegi amuñu benn yar euh, maa ngi lay nuyu Pascal Tidiane Fall ah euh, place Tidiane Fall Balsan Tidiane Fall du moins loolu kese la amuñu benn yar lan mooy lan mooy jeunesse jeunesse moo nekk mooy jeunesse bi nekk ci réseaux sociaux yi nii di monter ay nit di saaga ay nit boo toogee ci tele di indi ay bërki démb bërki démb bërki démb j'existe un vraiment lu ñaaw ci Sénégal mooy seen euh, taliban boobu nekk ci bu ñu koy wax Diomaye Faye nga xam ne ay toj toj rek lay wax il oserait à dire maître El Hadj Diouf publiquement di dugg ci yenn détails mais lu ci yoonam lan moo ci yoonam ba mu koy wax Maître El Hadji Diouf c'est ka il faut il fait son travail lan moo ci yoonam ba ngay dugg ci loolu te yow nekkoon ni yow yow yow yow yow yaa am problème pourquoi ngeen bañ a nangul Maître El Hadji Diouf liggéeyam Maître ñun ñii ñëpp ku ci am problème suba da ngay bëgg mu plaider la wala mu défendre la ngeen nekk di ko xas ci kanamu njabootam di ko wax leen di ko jéem a toroxal ci sénégalais yi mais mënoo leen ko toroxal yéen ay torox loolu moo am loolu loolu moo am loolu moo am solo suma gaay yi il faut ngeen arrêter seen genre affaire yooyu noonu te bàyyi ma ma concentré wu ngir yàlla suma live damay sensibiliser sénégalais yi wax sénégalais yi le euh, les les xayfistes ak léydistes maanaam réew miste nañu euh, gën a taxaw démb Idrissa ak Khalifa Sall wan nañ leen yoon bi yéen tamit noonu ñu def def leen ko ngeen booloo nekk benn pour changer Sénégal bu leen déglu taliban yi nekk fii di saaga wala di xaste wala di def lu neen loolu ñoom ñoom la intéressé mais yéen li ngeen li leen war a def mooy continuer leen ci marche boobu ngeen nekkoon Idrissa Seck ak Khalifa Sall ba élection di élection ba léegi ñooy jàll ñooy ñooy ànd amul benn élection bu mas a jaar mairie de Dakar te parti Rewmi nekkul di soutenir Khalifa Ababacar Sall am na loo xamante ni nag nit moo koy xam Khalifa Sall am na ay ambition sa Seck am na ay ambition mais nañ leen jël loolu yépp boole ko muy benn pour ñu mën a jële Sénégal ci guta gi mu nekk teg fi les deux patriotes yi nga xamante tey ñooy incarner l'opposition du Sénégal la l'opposition réelle du Sénégal c'est Khalifa Sall et Idrissa Seck loolu la il faut sénégalais yi gëm loolu du ma la du ma la du ma la bloqué du ma la bloqué du parce que li may wax neexu la li may wax neexu la du ma la bloqué vraiment euh, bu la neexee nga saaga def lu la neex amul problème saaga moom euh, arme bu faible la rek quoi voilà voilà du la bloqué quoi waxal lu la neex di ma saaga et puis voilà quoi amul problème en tout cas en tout cas euh, euh, comme ni ma ko waxee euh, Amadou Traoré voilà non amul argument amul argument lii rek lañ fi nekkee parce que man mënuma d'accord mënuma d'accord comme ni ma koy waxee rek Idrissa Seck Khalifa Sall dem seeti ko nekk magam Ablaye Wade dem seeti pale may dem seeti Ablaye Macky Sall ci pale bi may toog di dégg ay nit taxaw naan Ablaye Wade il est au palais Khalifa Sall c'est Idrissa Sonko avec le peuple c'est un message am na ñu dem ba eggraan ni voilà c'est la système de 1960 à nos jours 1960 à nos jours ngeen wax mom ngeen wax de waxu leen dëgg Idrissa Seck année 60 la juddu presque année 60 la judd presque waxoo leen dëgg année 60 la judd presque Khalifa Sall presque anne 60 la judd da ngeen a incohérence yi seen wax parce que da ngeen a bëgg indi slogan politique bu dee xale yi nga xamante ni tey ñoo nekk jeunesse Sénégal bii ngeen naan ñoo ànd ak Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko woote woon Youssou Ndour woote ñu ni ko fa dem ca Youssou Ndour bu Wally Seck woote woon Ousmane Sonko ci Wally Seck la ñu jëm xale Sénégal yi gëmuñu Ousmane Sonko de Wally Seck sax moo leen gënal Ousmane Sonko parce que au moins Wally dina leen bégal dina musique mu neex ci seen xol mais Ousmane Sonko nekk fi lu dul dénoncé di wax di yàq deru senegal di yàq deru nit ñi yàq na deru senegal ci àdduna yàq na deru senegal ci Séné ci Sénégalais yi tey jii Sénégal bu demee ba benn ba ñuy wax naan benn investir euh, nit kuy investir nangootul ñëw Sénégal parce que ñoom ñoo fi nekk di calomnier di kàcc di fen di wax lu leen neex ci réew mi ba ku ko dégg yaakaar ni Sénégal day tàkk Sénégal dara du fi xew Sénégal jàmm fi nekk jàmm fi xew ëllëg li ci biir Idrissa Seck ak Khalifa Sall ñooy lijjanti Sénégal loolu ku mu neexul génn réew mi na commencé tey maa leen défier sa Seck ak Khalifa Sall ñooy incarné tey politique bu Sénégal ñooy incarné l'opposition réelle bi Sénégal mun nañ dem dialoguer ak ku nekk mais sans dialoguer avec Idrissa Seck sans dialoguer avec Khalifa Sall mënoo ci am benn gain de cause loolu waxoon naa ko depuis depuis depuis depuis euh, élection yi jàllee depuis élection yi jàllee Euh, euh, euh, président Macky Sall dafa lancé dialogue bi bi mu lancé dialogue bi mu cité noowu Ablaye Wade ak noowu Abdou Diouf ma am mbetteel quoi ma ni man président Macky Sall xaaruma ko woon fii parce que je pensais que président Macky Sall tey bu dee woote dialogue il doit appeler Idrissa Seck et Ousmane Sonko parce que kii moo jël deuxième kii moo jël troisième pourtant ba ma ko waxee loolu yéen taliban yéen ñëpp a tàcc te loolu moo doon dëgg bi Ablaye Wade c'est du passé Abdou Diouf c'est du passé dañ fi jaar jàll Sénégal day avancé Macky Sall day dem yoonam vous me disiez que alors moi je damay défendre Macky Sall non je dis encore une fois Macky Sall ñeenti at wala ñetti at moo ko des ci réew mi du ñu def dara pour fakastal ko parce que bu boobaa Sénégal moo ci perte parce que Macky Sall il s'en fois day dem yoonam day dem yoonam léegi nag il faut ñu préparer ñi nga xamante ni ñoo koy remplacer c'est di Idrissa Seck ay Khalifa Sall loolu moo am kon Macky li ma leen di wax ci moom mooy ñeenti at yi ko desee bu leen jéem a def lenn lu koy yàqal ci réew mi nañu jéem a def loo xamante ni nii dana fi def loo xamante ni keneen ku fi ñëw bu ñëwee continuer Sénégal dem Sénégal avancé Ablaye Wade bi mu fi ñëwee dafa liggéey lu am solo loo xamante Macky Sall bi mu ñëwee daf koo dafa dafa continuer loolu mu doon liggéey Abdou Diouf ak Senghor dafa am lu mu fi defoon Abdoulaye Wade bu ñëwee dañu continuer def loolu noonu mais yéen ngeen bëgg Macky Sall dese benn mandat bii moo ko dese lijjanti na ba am ko lijjanti na ba am ko ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal demee lijjanti na ba am ko waaye léegi am na ko ñun ñëpp nangu nañ ko léegi amatul problème amatul problème parce que mënatuñ ko bañ parce que il est légal mënatuñ ko bañ parce que il est légal parce que le euh, constitution Sénégal moo ko légalal euh, conseil constitutionnel moo ko validé mënatuñ si lenn mënatuñ si lenn mënatuñ si lenn alors nañ ko ñaanal mu eggale mandat mu jeex ñu teg carte yi sur la table bu nekkee seen waa jooju ngeen di wax ni am na doole mu ñëw mu ñëw poser candidat ba xam jeunesse bi ngeen di wax ñoo ànd ak moom wala ànduñoo ak moom quand même c'est mieux amul leneen. oui oui Bokar Diouf oui oui Idriss Seck une expérience parce que parce que xam nga lu ma lay dëggal ci loolu Idriss Seck amatina dëgg ci kaw ñëpp parce que ñoom ñii ñëpp fii lañ nekkoon ñoom ñii ñëpp ñoom taliban yi yëpp fii lañ nekkoon naan voilà Idriss Seck waxatul Idriss Seck dafa dafa noppi Idriss Seck mu ngi dil ci suuf ñu yokk ci ni Idriss Seck day dil pour am chef de l'opposition parce que deux milliards la fa dégg looloo tax looloo tax Idriss Seck lijjantiwu leen faalewu leen sax parce que Idriss Seck xam na heure bu mu war a wax xam na heure bu mu war a jóg xam na heure wax ak heure def mais mënuñoo jóge ci élection yu ñëpp contesté on sorti un livre blanc ñu woo ñu dialogue demuñu dialogue bi bu ñu ko deful dañu encore suñu suñu ay wax Idriss Seck dafa constant Idriss Seck daf ne élection yi jaarul yoon génnee livre blanc moo coalition am ñu woo leen dialogue ñu ne duñ dem ci dialogue bi loolu bu ko Idriss Seck defoon dana ma bett man livre blanc bi kon lan la doon tekki damay dem ci dialogue bi pour valoriser sama livre blanc parce que président Macky Sall ak ñi fi nekk dañu jox considération le livre blanc de président Idriss Seck moo tax ñu woote dialogue politique loolu mooy dëgg loolu moo am solo loolu moo am solo euh, Alioune Badara Mboub maa ngi lay ziare di la di la woo añ di la invité añ Alioune Badara maa ngi lay ziare euh, di la invité añ comprendre ngeen kon tey bu ñu fa nekk di wax naan Idriss Seck dafa war a wax dafa war a génn dafa war a def lii non Idrissa Seck mu ngi ci liggéey ñu ngi ci dialogue politique bi parce que dañu introduire woon benn livre blanc ñi fi nekk xam ne livre blanc bi dëgg la ñu jox ko considération ñu woote dialogue politique parce que tey bu demoon ci dialogue politique bi xam na lañ fi nekk di wax lan moo tax kon mu def livre blanc Idrissa Seck sénégalais yi ñoo ngi koy jaari ñoo ñu déglu ay jàngaleer di xool fi mu teg tànkam ñu ciy jaar bu ñu ko defoon Sénégal avancé kon bu leen fi ñëw vraiment fekk ma may def suma live yéen taliban yi ngeen bëgg ma jaxase bëgg ma indil affaire Ousmane Sonko di ma ko porter non bu leen ma wax waxu Ousmane Sonko man Ousmane Sonko aw ma ak moom benn problème Ousmane Sonko c'est un opposant man tamit opposant la mais nag du ngeen ko sang ba mu set pour tilimal suma kilifa parce que sa Seck ak Ousmane Sonko bokkuñu ci terrain bu ñuy jaar dama leen wax ni Idrissa Seck muy nelaw Idrissa Seck muy nelaw laa la wax Ousmane du ko mës a ci élection ça la vérité ku mu neex ak ku mu naqari ku ko bëgg ak ku ko bañ ku ko bëgg dégg ak ku ko bëggut dégg looloo am Sénégalais yi atte nañ ci élection la ñu jógee ci élection la ñu te bu ñu tëggaatoon élection yi tey nu mu demoon rek lay demoon kon daal fi may li may insister toujours mooy encore une fois Khalifa Sall ak Idrissa Seck wane nañ ni ñaar ñii nii ñoo mën a taxaw tey pour diriger le Sénégal jëmale Sénégal kanam il fallait que tey militants yi xool message fort bi nga xamante ni nii xalifa ak Idrissa jox na leen ko ñu topp ci euh, euh, euh, directive yooyu te bañ a déglu nag taliban yi di saaga Idrissa di saaga xalifa di saaga Macky Sall ak Ablaye Wade déglu wuñu leen déglu wuñu leen parce que mënu ma woon d'accord tey benn waa parti opposant benn parti bu jóge ci taliban bu jóge ci Ousmane Sonko taxaw di saaga Khalifa Sall wala ngay wax Khalifa Sall loo ko warul wax c'est di naa fekk loolu c'est du hypocrisme di du ñàkk coloré parce que lu mu bon bon bon bon élection yi passé am na ay nitu Khalifa Sall yu sànnil carte Ousmane Sonko Sonko du yàlla du yonent non non non Ousmane Sonko du question ay yàlla ak yonent beeg Ousmane Sonko comme ni ko gars yi di waxee man bëgguma sax ñuy wax ay Sonko du yàlla du yonent Ousmane Sonko il peut rien ici au lan la amee député dem nax ay ay ay ay ay parti politique pour jéem a nekk ci député député yi mu nekk moom mu ngi nii chaque jour ci système bi lay dundee député yi ñu euh, assemblée nationale mu ngi koy fay jox ko oto jox ko carburant jox ko privilège yëpp te Ousmane Sonko du fa dëgg tànkam il mérite d'être sanctionné parce que pourquoi du dem du dem assemblée nationale parce que dafa gën député yi fa nekk kooku la ñu war a jox Sénégal mais sénégal yi foo ñu yeewu kan la jox Sénégal ki nga xamante ni. député du peuple la il respecte pas la population du Sénégal Assemblée nationale nekk séance de travail mu jël avion ni day dem day dem seet ay ay ndeyam ak ay baayam passe bi mu passé pour dem seeti ndeyam ak baayam Assemblée nationale moo ko fay carburant bi mu lakk Assemblée national moo ko fay sur le dos du Sénégal Ousmane Sonko day dund ci kaw Sénégal yi ba pare taxaw wëlbatiku di saaga Sénégalais pourquoi on l'accepte pas ça loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg su ngeen bëggee ku bu ngeen bañee ku wax dëgg dam leen ngeen seeti ay naafeq yuy tëggal ay sabar Ousmane Sonko yooyu ñun yooyu nekkuñu si yooyu ko ñun parce que lan la c'est du hypocrisme c'est du euh, euh, ay nekk fii naan voilà Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko Ousmane Sonko naa ne rien du bu leen ma sonal di ma wax ay waxu Ousmane Sonko man Ousmane Sonko dafa ma tax a jóg Ousmane Sonko dafa ban intérêt la amal Sénégal yow Sénégal moo lay fay bu ñu wootee pour Sénégal nga jël sa avion ni nga da ngay seeti waajur dem ci ay jumaa di indi ay nit mu naan may ma ceeb may ma ceeb affaire manipulation yu ñàkk fayda yooyu ngeen di def yéen a dem seen benn jigéen ni bu Ousmane rek nekk leen fa naan may ma ceeb pour jéem a toroxal sénégalais yi yéen yéenay a goo leen da ngeen di jéem a def politique mais mën a goo leen politique affaire da manipulation yooyu ngeen nekk Sénégal affaire yooyu il faut ngeen arrêté ko ngir yàlla dama leen ko ñaan Mansour Sow ngir yàlla dama leen ko ñaan non man suur dama leen ko ñaan sama laay bu fi kenn duggat di ma waxu Sonko man dama am liggéey bu may liggéey Ousmane Sonko intéressé wu ma Pastef intéressé wu ma dama ñëw tey pour def laay pour wax les xalifiste ak les réewmistes ni leen seen ñaari kilifa yi jox nañ leen message fort pour ngeen gën a seen booloo bi ngeen booloo ngeen gën ko saxal parce que gis nañ ànd bi ngeen ànd ngeen gën ko saxal gën ko dëgëral liggéey ci luy jëmale ini euh, force yooyu kanam te romb wala ngeen jëlale tey ñii nga xam ne dañoo jóg di dal ci kaw Khalifa Sall muy waa Pastef di dal ci kaw Idriss Seck muy waa Pastef bàyyi leen leen foofu ñu nekk seen seen seen affaire xale yooyu ñuy def parce que affaire xale moom affaire xale la ñoom nañ def affaire xale comme ñoom nee nañ in euh, ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy xale yi ñoo yore affaire xale yi majorité xale yi moo tax ñu ngi def yëfu xale nañ def xale Sénégal nag kër kër kër goo gis ci àdduna day am kilifa Sénégal nag day am kilifa kenn du ko jox ay xale ñu yàq réew mi loolu mënul ne loolu mënul nekk c'est impossible voilà amul benn problème Ousmane euh, Mansour bu ñu bàyyee rek ñu bàyyi loolu la quoi et puis euh, mu ngi noonu non non Ousmane Sonko c' est un businessman c' est un businessman man bala maa dee ñu may wax quatre vingt quatorze milliards quatre vingt quatorze milliards yi Ousmane courtier la woon courtier courtier la woon bu nekkoon ni moom mooy régler marché bi coow du jib bal du tàkk mais Ousmane Sonko dafa cóole ñu jox keneen affaire bi mu taxaw dénoncé loolu la Sénégalais yëpp xam nañ ko ñun ay nante lañ ñun ay businessman lañ na affaire bi jaar fi ma kalaate dil bi loolu rek dafa kalaate dil bi parce que lam ci amu ko ci sénégalais yi nand nañ loolu xam nañ ñu ci jublu woon du dëgg fi mu toll nii may wax ak yéen Sonko bëggatul ko wax ci 94 milliards yi 94 milliards bu ko déggee day mel ne ay bomb lay dégg bëggatu ko dégg parce que xam na ni waxul dëgg sénégalais yi da doon teg dil pour gagner ci 11 milliards quelque et puis jeex na jàll na quoi di 94 milliards dimbali leen ñu jeex na cooki fin la woon euh, cooki la woon cooki fin bandi yi grand bandi yi fin bi lañ leen gis léegi nag moom Mamour Diallo ñoo ci des Mamour Diallo moo xam bu ko neexee mu porte plainte ko bu ko neexee mu ko porte plainte mais de toute façon ñun loolu suñu yoon nekku ci mu ngi ci wàllu yoon na dem ci justice amuñu ci wax amuñu ci question lu nekk ci suñu yoon nekku ci duñ ci wax duñ ci wax nañ ko lijjanti ñoom ñun senegal la ñu tal Ousmane Sonko bu dee lijjanti ay milliards ci kaw Sénégalais ñun lijjanti wuñu ko ñun senegal la ñu tal da doon dëkk ay dilam dil ba cool mu yoole maa maa ngi dégg barki bu benn waaye naan Ousmane Sonko musul signé Ousmane Sonko musul wax yow Ousmane Sonko ñëpp ñu gis ko ñu wane ko ñëpp dégg ko ci audio muy wax ñu toog Ousmane Sonko avoué ni am na non mais quand même pour lan ngeen bëgg a manipuler seen manipuler Sénégalais yi yéen ñi ngeen di manipuler ñoo leen ëpp xel parce que ñeneen ñi nekk ci àll bi mënoo leen a manipuler parce que dégguñu leen amuñu internet wala amuñu ay réseaux sociaux yu leen dégg mais yéen ñi am internet am ay rajo di déglu ñoo ñooñu ngeen di manipuler ñoo leen gën a yeewu foofu faale wuñu leen loolu la quoi. xalifa Ababacar Seck Italie dang may fàtte ah xalifa Ababacar maa ngi lay ziare maa ngi lay ziare eh, Bada Mbuub nga ni ma booy noo bàyyil Sonko yow Bada yow tu ma xam nga ni man man moom aw ma benn problème ak Ousmane Sonko voilà mais bara su may def su ma live waa kër Ousmane Sonko dugg fii di ma saaga ay ndey wala ñu may wax dara man dañ may tooñ parce que man saagoo ma leen defuma leen dara man dama ñëw pour wax Sénégal dëgg wax li nga xamante moo xew ñu commencé di ma saaga di dugg fii di wax lu nañu wax ko loolu la quoi dégguma loo wax Magui Bass Magui Bass dégguma li nga bind nii comprendre ma ko quoi c'est dil non Abdou toogal waay non non comprendre du ma quoi man xam nga affaire quatorze milliards quatre-vingt-quatorze milliards yi dama ko jàppe ni rek man a yow magi bas ñuy xëccoo benn marché ma gañe marché bi maanaam yow nga perte nga dem yoole noonu la demee noonu la demee mais ana Tahirou Sarr ana Tahirou Sarr affaire quatre-vingt-quatorze milliards yi moom tant que Mamour Diallo Ousmane Sonko mais ana Tahirou Sarr ana Tahirou Sarr ana ñu séq loolu yëpp ba ba Ousmane Sonko daf ko bëgg a politiquer di ko di di di ci victimiser wu ñee ñee ñeneen ñi tamit dañ ciy bëgg jaar pour discréditer Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ci perte moo ci perte parce que loolu waroon na ko passé ko waroon na ko passé jeexal ko dem ci leneen mais dañuy topp di xëcc benn affaire jaarale ci benn affaire voilà euh, nee nañ dem nañ ba ne Idrissa Seck mooy comploté pour ñu génnee Ousmane Sonko mais quand même mais loolu loolu loolu man dama loolu yow mën loolu mënu Mansour wa yow yow dégg nga waa Ousmane Sonko ñu ne Idrissa Seck mu ngi complété pour ñu éliminer Ousmane Sonko dégg nga ko wala déggoo ko yow dégg nga waa Ousmane Sonko ñu ne Idrissa Seck mooy jël pour chef de l'opposition fan yëpp loolu nga doon dégg pourtant chef de l'opposition wax nañ tur boobu démb tax yéen ñëpp ngeen génn tey di saaga Ablaye Wade di léegi kàccu leen yéen ñu doon wax ne Idrissa Seck moo nekk di dil pour chef de l'opposition léegi ana loolu léegi ana loolu quand il faut ñu toog xoolante yow yow Mansour dama lay laaj yow ni nga xamee Idriss Seck dama lay laaj ni nga xamee Idriss Seck parce que ci parti Idriss Seck nga bokkoon yow bi nga déggee ñu ne Idriss Seck mu ngi dil pour chef de l'opposition yow yow tu consigne ça yow da nga nangu loolu parce que yow bind nga ma nga ne ma deux milliards moo tax mu koy def Mansour yow loolu waroo ko wax baax na wala baaxul waaw ñu baaxul wala baaxul ah voilà voilà baax wala baaxul dara voilà ma xaaral ma dugal euh, alo euh, waa léegi mi ngi ñëw ah mi ngi ñëw wala ñëwul Babacar Seck ok voilà xam nga problème bi mooy loolu moom laa loolu loolu laa mën a wax euh, waa ji ma waa ji ma leen doon wax léegi mu ngi nii moom la ñuy wax jàmbaaru Pastef yéen ñëpp gis ngeen ko ci live bi moom moo bind post boobu mu ni Ablaye Wade au palais Khalifa Sall c'est Idrissa Seck Sonko avec le peuple moom moo ko bind ma ne ko demain Frasour parce que Sonko dina gisante Khalifa Sall est-ce que di nga sa poste boobu noonu moom bokk na ci ñu doon wax ni Idriss Seck day dil deux milliards pour nekk chef de l'opposition aujourd'hui ñoom ñëpp am nañu gàcce waxuñu benn dëgg waxuñu benn dëgg alors encore une fois buñ fi nekk di saaga waa kër Khalifa wala waa kër Idrissa man li sama xeex mooy Idrissa Seck ak Khalifa Sall on a montré euh, ay hommes d'état lañ euh, seen ànd yàgg na te lu dul dëgg du yàgg Khalifa Sall seqi tànkam dem seeti rakam ñu waxtaane réew mi waxtaane Sénégal euh, loolu nag ci laay woo Atlas wala Marcellus man comprendre du ma ci quoi euh, ok Ousmane euh, ok arrêtez donc Ousmane Sonko quoi parce que Ousmane Sonko vraiment c'est du aussi quoi parce que koo xamante ne nii vraiment yow li ñu fi wax yëpp wax nga ko fi te gis ñu ci dara man Ousmane Sonko vraiment jàpp naa ni Sénégalais yi bàyyituñ ko xel. moom na fi nekk di def ay folklore am na fi nekk di def ay soowam yooyu sénégalais yi dépassé nañ ko sénégal dañu bëgg avancé li leen di avancer nag mooy Ousmane euh, euh, Idrissa Seck ak Khalifa wane nañ yoon bi les militants de khalifistes et réwmistes seen ànd bi gën leen koo saxal di woote di waxtaan di def ay réunion parce que le peuple est avec vous loolu mooy dëgg le peuple bi ñu ngi ci ginnaaw Idrissa Seck ak ginnaaw Khalifa Sall la preuve en est que ñoom ñaar dañu àndoon ci yi am na koo xamante ne nii il a profité de l' absence de Ousmane euh, de Idrissa Seck euh, de de Khalifa Sall et de Karim Wade aujourd'hui ils disent que voilà j'ai quinze pour cent j'ai avec les jeunesses tout ça mu wëlbatiku di saaga Khalifa Sall boobu nga xamante ne tey la malheur bi ko dal ci la profité woon am quinze pour cent yooyu moom moo wëlbatiku tey ànd ak ay nitam di saaga Khalifa Sall dinaa non à amnistie à Khalifa Sall loolu nag waar réew mi duñ ko seetaan man dama leen koy wax ngeen dégg ko man du ma seetaan benn taliban bu bon di wax Khalifa Sall loo ko warul wax loolu du ma ko seetaan duma ko seetaan parce que Khalifa Sall jiwul président Idriss seekul lu bon bi ñëpp bi lépp méttee dafa bàyyi lépp dem ànd ak président Idriss Seck kon sama devoir la en tant que réewmiste en tant que idiste ma xeexal Khalifa Sall ci taliban yu Ousmane Sonko yu bon yi nga xam ne dañoo jóg pour yàq ko pour yàqal ko pour xeex ko loolu du ko nangu dama leen koy wax ngeen dégg ko ni may défendre Idriss Seck laay défendre Khalifa Sall loolu booy boo taliban yi ngeen xam ko léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi bu leen neexee nag ngeen wax lu leen neex bu leen neexee ngeen wax lu leen neex non non non bul wax ni yaa gis benn yaa gis Sonko mu saaga non Sonko waxuma la Sonko moo saaga dama ni ñi ànd ak Sonko wala déggoo olof ma wax la ko ci euh, français wala séeréer wala pël ma wax la ko ci séeréer wala pël. ñi ànd ak Sonko benn ngi nii toog jàmbaaru Pastef mi ngi nii démb lu mu def c'est un insulte Macky Sall au palais xalifa Sall c'est Idi Sonko avec le peuple c'est loolu du dëgg du yoon loolu nag lañ leen dul may bu leen neexee nag lu leen neex wax leen ko Ablaye Wade saaga leen ko def leen ko lu leen neex parce que démb yéen moom la woon da leen koo bëggoon a rey dem système ak moom Ablaye Wade système système na leen dem feneen loolu li jënti leen kook moom man sama yoon nekkul ci Ablaye Wade mais dama ni du ma nangu benn taliban taxaw di saaga Khalifa Sall ci suma kanam en tant réew mi si du ma nangu loolu parce que Khalifa Sall dafa montre loyauté ak président Idriss Seck dafa wane Sénégal leen président Idriss Seck mii ma àndal bis bu yàlla sàkk moom la Sénégal soxla te Idrissa Seck mii ku jara àndal la moo tax Khalifa Sall di àndak moom boobu ba léegi kon loolu noonu du ko yàq tey mu defaat taxaw firndeel waa Sénégal ni sa Seck nit ku jara topp la nit ku jara àndal la moo tax maa ngi continuer di ànd ak moom moo tax démb seen ndaje boobu am loolu tax mani man Khalifa Ababacar Sall du ma nangu benn taliban wala benn ku bokk ci Pastef soi-disant patriote nga taxaw di saaga Khalifa Sall suma kanam du ma def loolu baaxuñu si réew mi ñii baaxuñu si réew mi saaga nañ sëriñ ñi saaga nañ kilifa diine yi léegi bëgg a saaga homme d'état yi pourquoi Khalifa Sall il mérite pas ça lu leen neex wax leen Ablaye Wade yéen a doon ànd ak moom Ablaye Wade bu xëyee dem système leen dem ànd jeeg dem ànd jeeg Macky Sall loolu seen affaire la ñun suñu yoon nekku ci mais da ngeen ni bàyyi Khalifa Sall ak Idriss Seck loolu moom duñu leen ko permettre Khalifa Sall idre Idriss il faut ngeen bàyyi leen tout tranquille voilà encore in fois li may wax rek mooy euh, les khalifistes les réwmistes nañu continuer seen alliance bi ñu def ñu continuer nekk ci continuer di ànd ci seen ànd boobu xool ci seen i kilifa ni ñu koy defee ñu defe ko noonu loolu man loolu laay continuer di ñaan parce que la force politique du Sénégal force l' opposition du Sénégal c' est entre c' est c' mi ngi ci mi ngi ci Khalifa Sall ak Idrissa Seck ñoor ñaar ñooñu ñooy incarné tey force politique yi nga xamante moo nekk ci Sénégal loolu kenn mënu ko nuire tu pensais que Khalifa Sall va fuir Idrissa Seck tu te trompes lourdement euh, Mansour yéen waa Sonko loolu seen wax la dama ni ñun Khalifa Sall sa Seck la soutenir oon Idrissa Seck ak Khalifa Sall seen alliance politique du tey yàgg na loolu noonu moo leen naqar yéen taliban yi ba ngeen xëy démb ak tey yépp di saaga ci réseaux sociaux yi Khalifa Sall dama ni loolu lañ leen mayul Khalifa Sall ak sa Seck ñoom tey ñooy les deux hommes matures ñi nga xamante ne nii ñooy incarner la vraie patriote pour diriger ce pays loolu am naa si droit yéen nee naa yéen yéen yéen nee ngeen jeunesse bi ngeen àndal yen nee ay patriote ngeen dem leen ngeen patriote dama leen wax ni Ousmane Sonko bu Waly Seck doon tëgg Ousmane Sonko woote jeunesse bi Waly Seck la ñu ji Sénégal taluñu ay Ousmane Sonko xale yii ma gis nii taluñu Ousmane Sonko. bu leen neexee nan ngeen wax ko ci réseaux sociaux yi kañ-kañ ko ci rajo yi mais na na Pape Diouf tëgg wala Waly Seck Ousmane Sonko romb li jënt wuñu ko Ousmane Sonko na génn doxantu université ñan ñoo koy topp na Ousmane Sonko génn doxantu Waly Seck génn doxantu Waly Seck la xale yi topp xale yi Sénégal dañoo gëm ay ay jeune genre affaire yi ngeen di ay soixante-dix ans patriote loolu mooy dëgg El euh, euh, Hadj Malick Seck El Hadj Malick Niang El Hadj Malick Niang loolu mooy dëgg voilà loolu mooy dëgg en tout cas en tout cas El Hadj man j'aime bien nga intervenir ci suma live vraiment mais du ma la gis pour man la acheter su nekkee envoyé nga ma demande dama lay dugal parce que yow soxla naa sa xalaat ci ñi nga xamante ni tey dañu jóg pour euh, jaxase Sénégal. parce que vraiment man gisuma lu fi ñor bañ koy màcc ba ñu xëy di saaga Khalifa Sall di naan warul dem si Idrissa Seck voilà c'est le système pourri de mille neuf cent soixante à jours te xamuñu ni Ousmane euh, Khalifa Sall ak Idrissa Seck mille neuf cent soixante ana yooyu la ñu judd ñoom lan mooy lan lan mooy seen problème lan mooy seen problème lan mooy seen problème il faut ñu arrêter genre yi voilà ma euh, Diop Modou euh, Cheikhul Kara xaaral ma xol su ma la mënee dugal ma dugal la euh, voilà di wax ni am na yoo xamante ni nii mënuñu ko accepter ci ci ci ci ci ci ci ci ci Sénégal Sonko 2014 non defal defal dindil kat dindil dindil dindil un bi nga def nga def deux dofu kër gi yow dof dëgg nga bul wax 2014 defal Sonko 2024 2014 weesu na de moo tax Sonko weesu na yow xam nga ko te yàlla du juum yàlla du juum yaa ngi nii bind Sonko deux 2014 mais sénégalais yi gëmuñu loolu vraiment euh, léegi ma dimbali la nga def 2024 moo gën. voilà en tout euh, mooy loolu tra voilà maa ngi dugal xaw ma Sonko la nga xaw ma lan maa ngi lay dugal mais demul mi ngi en cours aju en cours mais mais mais demul voilà voilà euh, Malick bu ko tontu parce que euh, kii moom euh, chaque jour sax.